fa tabaarakallaahu kon gannaaw ayat yooyu mu jàng dañuy jël na kàddu bi jox ko professeur Souleymane Dia mu def la mot du xalif incha allahu su ci yeggalee rek ñu jox euh, monsieur le ministre mu joxe kàddoom ñu bokk déglu professeur Souleymane Dia Salam alaikum, nabiil karim ñuy yëkkati kàddu ci turu sëriñ bi doyal kàddu yi nag mu jëm ci thème nga xam ci ndigalu comité scientifique bu 138e édition ci la liggéey ci la waxtaan muy la place de l'héritage dans l'islam l'exemple de Thiénaba maanaam dono ci islam exemple bu Thiénaba islaam rekk mooy diine ju revendiqué donop mbooleem yonent yi yàlla moom sant ñu gëm li mu wàcce ci ibrahim ilhaq yaqub seeni sët gëm li mu wàcce ci muusa ak isa yàlla moo sant jullit mu bañ a indi ak wuute ci yonent yi ku weddi benn yonent weddi nga yonent yépp kon dono dafa bokk ci valeur yi islaam jiital bi yàlla wàccee diine ji ba mu mat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jooxal ko ba saxaba yi ni dégg nañu atte yépp mu laaj leen ndax jotal na ñu tontu ni ko jotal nga moom booba la mission ak islaam daa di nekk dono mu jël ko teg ko ci loxol saxaba yi wuy ji boroomam waaye waxoon na ni su fi jógee pas-pasi islaam yi dinañu ficciku benn par benn te bi ñuy jëkk a ficciku mooy ni islaam tërale yoreenu nguur la xew yamaama diggante abu bakar ak musaylima fitnatul kubra la xew baytil maxdis ba yéefar yi tugal nangu ko ci loxol jullit ñi ak yeneen loolu lépp dafa dëggal rek wax yonente bi bi diine ji duggee afrique itam lu ni mel moo am noonu diine te mooy ceddo yi ak tubaab yi taxaw temm ci éliminer wala boog soppi dono bi ba turu bi rek des bi waaye jikko yi tuxu ci contexte boobu nag la mag ñi laxasu ngir aar doomu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku mel ni Cheikh Umar al fouti Maba Jaxu waaye Mamadou Xame Maali yu jóg ku ne bàyyee ak sa njaboot dono bu rëy njaboot bu ne war a xam li ñu ko bàyyee ba man koo wattu ndax ku ràññeewul valeur li ñu la bàyyee doo xam mukk li war a doon sa taxawaay pour wattu ko ba ëllëg yow itam nga man koo jébbale kon nun njabootu Maliyu lan mooy sunu dono Mamadou Ameba mission bi mu doxal moo di taxawaayu tajdid maanaam rénovateur beesalkat tajdid li ko tax jóg du suppi dara ci tërëliini diine waaye delloo xeet wi ci cosaanu message bi alxakim ak abu daawud solo nañu xadis buy wax ni yàlla di dañ di yónni ci xeetu yonente bi ñoo xam ni seen mission mooy beesal diine fii ci Afrique sowu jant ñetti riwaaye ñoo fi notoon ci jamono yooya ci définition ak mission bu tasdiid gisiinu al suyuuti mi jàpp ni xarnu bu ne benn tasdiid mooy am biy mujj wàcc ci jamono ubbunt bi mooy mahdi almahdi moom dafa jàpp ni benn tasdiid képp mooy wàcc Ahmed Baba thèse bi muy défendre mooy tasdiid yu bari ñooy wàcc mu wax ni mën nañoo sax bokk jamono waaye yàlla da leen di wàcce ci gox yu wuute yu diine laaj taxaw ak beesal am nag boroom xam-xam yoo xam ni bi ñu gëstoo taarixu Mamadou Xame Ba dañoo gis ni xalwa bu siiw te yàgg ba mu duggoon ca coofi ci 1828 bokk na ca la mu doon leerlu ci boroomam riwaaya bi mu war a tëy ci ñetti xeeti tajdid yi fa ñu tënke seen gëstu ñoom boroom xam-xam yi mooy ginnaaw Mamadou Hamé dafa tànn beesal diine ci ab gox mu di Afrique sowu jant te weddiwul benn tajdid dafa kon jàpp riwaaya bu Ahmed Baba laaj bi kon mooy lan mooy màndargaal mission tajdid bi Mamadou Hamé gàlloo sikarkat yi dinañu tudd lu bari dono maadi waaye lan la ëmb suñu tontoo ci laaj yooyu dinañu dimbali ñu xam luy dono Maadiyu ñun njabootu Maadiyu loolu mooy tax ñu am orientation bu leer ba yëngu-yëngu jamono du ñu mën a wëlbati tubaab yi dañoo amoon seeni islamologue ku mel ni Paul Marty wala Arnaud dañoo jàng arab ba maîtriser langue bi gëstu diine ji ba xam ci lu bari doonte gëmuñu ko ñoo daan xelal colonisateur yi ñu teel leen a artu nag ni islaam diine la joo xam ni feek mi ngi taxaw li ñu bëgg di not Afrique du sotti ñu ni leen diine la joo xam ni ku ko bëgg a jekku dangay fexe ba nasaxal ñaari kenu yi ko téye benn bi mooy alxuraan ji nga xam ni baat bu ne luwaa la buy àtte ñaareelu kenu ba mooy baati tawxiid yuy dugal nit ci diine mu di baat yoo xam ni dañoo ëmb ñaari maanaa wéetal yàlla ak dàq jëmal ko l'unité de Dieu et l'immatérialité de Dieu bii di wax li yàlla doon bee di wax li mu doonul ñu teg ca ñoom boroom xam-xami tubaab yooyu bi baat yi dañoo ëmb itam ñaari xeeti puissance maanaam ñaari xeeti doole yu wuute te bokk jubluwaay jii doole day dàq bokkaale ji ci des di màndil ci koy tudd moo tax feek ñoom ñu ngi tudd baat yooyu duñ leen mënal dara tubaab yi jóguñu rekk songu diine ji donte gëmuñu yàlla dañoo gëstu ba trouver dooley diine ji door a indi pexe pour attaquer diine ji jaar ko ci ñi jiite woon islaam ca booba jamono loolu ci ngay mën a dégg ni bi gouverneur Pinet-Laprade jëlee décret ci 1868 tere zikkar ak wasifa ndar ak li ko wër booba ma ngay attaquer tawxiid en tant que kenuk diine bi mu yabalee commandant de frégate Vallon mu lakk Wuro Madiou ci 1869 booba ma ngay attaqué daara ak alxuraan en tant que kenu diine ci ngay dégg itam réaction bi cheikhu ahmadu indi ba mu waxee ni dañuy dee ba jeex wala baati tawxiid jolli jëm kas jëm asamaan ndax dara itteeluma cheikhoy wax lu dul yëkkati baatu yàlla ak dundal sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam taxawaay boobu nag ak profession de foi bi ko lal ñooy firi li dono bi lëm ëmb maanaa objectif bi benn la moo di wéetal yàlla ak dundal sunna leneen lu mu doon rekk jumtukaay la pour àgg ci objectif bi ba ci nag alal ak nguur loolu moo tax dono maali yu alal du pouvoir su yooyu doonoon itteem cheikhu ahmadu ay gàngunaay ak ay réew lañuy bàyyee ndax yilif na réew mi gënoon yaatu ci di jolof ak réew mi ëppoon doole di kajoor waaye mësula wuyoo turu dameel wala turu buur ba tekkiwul ndomba tànki kàngam yi ngànkoon réew yooyu ku ci nangu yi chart te moo di sanc jàkk ak daara fa nga yilif dàq feeti ceddo dundal feeti jullit bàyyi na la ak say ndombo ñaari cër daal la téyaloon boppam mu di imaam ak xaali dafa xamoon bu wér ni dundal turu yàlla moo ëpp solo téye nguur ak yilif ay réew réew ak péey du dara lu dul puissance matériel yoo xam ni ñaare dañuy nasax ki leen sosoon di dund li mu jàngale koon ci taxawaay yooyu moo di mission bi gàllu ci mbaggi donob tajdid donob maadi yu te moo di tabax ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam defe woon nation spirituelle maanaa xeet woo xam ni càlla la gi leen fasante mooy tawxiid ak sunna loolu moo waral bi Samba Sadio dëgmalee cheikhu gis ni ki mën a yenu dono bi wattu ko mooy ki am meilleur profil spirituel et intellectuel ci mbooloo mi di amari ndaag maanaa ki gën a ubbiku ci xam-xam te ruuxam gisul lu dul boroomam di nag ñaari mbir yu kenn mënula teqale imaam Malik ni mu firee xam-xam moo di du rekk bind ak maas xam li ci téere yi waaye itam leer gu yàlla di branché ci xolu jaam bi dono fépp la am importance waaye rawatina kër gi ndax taarix bi ko sos taarix bi dafa mel ni ngir maanaam mbedd mu yaatu mu ñu baliser jéego boo seqi rek dal ci màndarga muy signaler importance dono bi ci jëkk dini cheikhu jébbale dono bi Amari Ndaak def ko ñaari anam bii jëm ci zahir bii dellu ci batin zahir si mooy bi cheikhu jëlee ay seede di ñi mu doon defloo istixaar def discours am bu rëy ba jébbal doono bi amari ndaak tracel ko feuille de route baatin ba mooy ba mu wéetee ak moom ñu toog jàkkaarloo seen bëti woom di laale mu wax loo xam ni nekkul ci téere du caagéen ak woy ndare waaye baat yuy génn ci gémmiñ tàbbi ci nopp su kilifa demee ba wóolootul boppam loola mooy baatin histoire du fa yegg beneen jéego bi màndargaal importance dono di fi amari ndaag jaar ba sañc dëkk bi bi muy wër réew mi te bari fa mu mënoon a sanc waaye di xeeñtu garab ga ko seexu ni woon melowaat xet gu neex ga doy na ca tegtal soo ko gisee sanc leen te toog fa seen diine aaru booba kon amari ndaag ma ngay sàmmoonte ak matuwaay yi mu war a jël ba mën a samp dono bi man koo sàmm beneen jéego buy màndargaal ba tey importance su doon ci kër gi moo di nii kër gi di mottulee gàmmu sëriñ bi di ko door a def léegi di wàcce téere te amari ndaak sos ko bàyyeen bali fital yi dañuy fàttali réaction ba cheikhu defoon ba tubaab yi ne kenn du fi wéetal yàlla sikarkat yi jiital sëriñ Thiénaba di wéetal yàlla ñu nga koy fàttali sëriñ Thiénaba doo buur sa cër mooy wattu dono bi yàlla dong mooy buur moo tax moom it Serigne Thiénaba bi mu yegsee ba toog mu revendiquer dono bi fedd li wéetal yàlla ci mbooleem xibla yi jóg taxaw jublu penku wax nag ni su dono bi naree yàqu te mooy su diine naree manki booya boo yow yàlla yamele fi àdduna défi di jafe-jafe bi képp ko ayee wut di jànkonteel nag mooy lu jamono di dox matériel di gën a itteel nit ñi di gën a not doomu aadama te moom ki aye wattu mu war a sàmm dono boobu nga xam ni dafa yëkkati ruux sobental matière ba tax na soo jàngatee seen taarix ci anam boobu da ngay gis ni ku ne ci ñoom ni mu jànkoonte ak jafe-jafe boobu ba taxaw diine maam Momar Talla dafa gàntu décoration Blaise Diagne gàntu dund bu bari ba ko gouverneur doon jox ci ati xiif ba gàntu résidence ba ko gouverneur général affecté woon ci plateau ci digg ndakaaru loolu lépp ma ngay sàmm dono bi jël ruuf teg ci kaw matériel Serigne Ibrahima dafa jël wenn ci ay naari góoram tudde ko rëbb firi ko daje naa kuy taxan waaye bokkuñu lu ñuy wut booba ma ngay jàngal njaboot gi ñu wattandiku topp riir mu leen di yóbbu ci salfaañe seen dono te mooy yëkkati matériel suufeel ruux sëriñ Alfa Léeb jàngale taxawaay bi taalube war a am ba sàmmoonte ak dono mu ni naaw fër ci asamaan jarula nawe nit picca ko ko dàq nuur ci biir ndox ni meng jarula nawe nit jën moom la dëkke batu ci biir suuf jarula nawe nit ndox a ko ko dàq leneen loo indi rek noonu la mel mu ni li jara nawe nit mooy tënku ci alxuraan ak sunna ci wax ak ci jëf sëriñ Modou li dafa jàngale ni taalibe war a dunde ngir sàmmoonte ak dono bi te moo di dëddu àdduna jël sa itte jëmale ko ci sa borom loolu la daan léeb ba muy wax ni dafa génne ab xolam tàpp ko ba dindi ca lépp luy ñuul ñuul maanaam lépp lu xeetoo ci matière mu weex tàll dellu ci leer te mooy roo sëriñ Ousseynou Khoudio dafa jàngale ni ñuy wotoo dono bi ci anam boo xam ni ku taxaw ci pénc mi teg ci sa bët jaay këram ndakaaru muy xaalis bu bari bàyyi këru boppam mu di seng jël alal ja def ci néegu yàlla kii kay jël na ruux teg ci kaw matière sëriñ Ousseynou Xaar benn jàngale benn discours la amoon te daawul génn mukk yàlla wax na ba tàyyi ni ku jàng ku ni jàng ci àdduna tuuti la nga gënoon fonk dina jóg ci say loxo tàbbi ci yeneen loxo muy alal njaboot ba ci soxna kon kay li jara téye mooy li dul génn mukk loxol boroom te mooy yàlla kii kay fàttali na dono bi ak ni ñu koy wotoo sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane yàlla na yàlla bàyyi ko fi te mu ànd ak wér di ñu jàngal fu mu toll ni kiy wattu dono bi dafa war a doon nituk jàmm doxaliinam dafa jëmmal njàngalem yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mi ni woon won leen seen mer ngir jàmmal nit ñi bokk na ci am njàngaleem ni yàlla bindul yamale waaye bu ñu dugalee yërmande ci ni ñu tiimante loraange du bari te moo di ku tiim sa moroom ci ay at wala ci kàttan ci alal ci xam-xam wala ci man-man na nga ko yërëm boo ko defee bu ko defee ki tiim ñépp di yàlla subhaanahu wa taala yërëm ñépp nu am jàmm tey ak ëllëg fi ñuy tënke mooy ci sos te mooy maam amari ndaak gàcce ngaalaam sacrifié na ñett yi doomu aadama gën a fonk di njaboot alal ak bakkan résultat bi mooy fàggul ñu dono bi gën di diine ju tànn jël ruux teg ci kaw matériel yamu ca mu fent bàyyee ñu tarbiya bi ñuy sàmme ak woto dono bi jiital ruux ginnaawal matériel nag firiwul mukk yaafuus nit ku ordinaire su góor góorgóorloo ba bàyyee njabootam kër gu ñu mën a dëkk day jàppe boppam jàmbaar Amary Ndaak sanc na ab dëkk bàyyeenu la mu annoncé woon keroog ba mu génnee ca xalwa ba ni bërëb bi nu doon seet yàlla won nanu ko su ngeen fi toogee ca liggéey jaamu yàlla li ci xibla yépp dina leen fekk si dafa mel ni lu agsiwula tam mi ngi ci yoon wi jige ay taax te mucc ci seeni ayib chemin de fer ak gare depuis 1920 route nationale courant autoroute route péage li muy tuumu ci Afrique lépp dafa wër dëkk bi ndomba jokkale ko ak pays réew mi waaye amari ndak yamul ci tànnal ñu dëkk bu valeuré da ca boole fakul ñu jumtu yi liggéey te mooy gor bayé ñu suuf soo xam ni diirub 138 ans ñu di ko bay di dunde te mënuñu koo jeexal mënuñu koo ràppal lég lég ma tooñ sama xarit sëriñ si naan leen seen maam day ñépp ko amal njukkal waaye rawatina yéen di sant Seck ndax su demul woon Samba Sadio seen daraja bi gën a mag du weesu ab cheikh ci tariixa xaadir waaye mu dem Samba Sadio ñibbi si bàyyee leen tariixa bu wër réew mi ak darajay xalif général ngeen koy doonante kon maam Amary Ndaak mi sos gàcce ngaalaama yàlla na yàlla foyal ñu ko waaye ñi wuutu waxtu ñoom seen jaam wàcc na wone nañu fi ñu war a teg sunu tànk ànd ak yaatal organiser te dara rëccul ci dono bi kilifa yi ay repère lañu yu nuy dimbali ñu natt suñu doxin ba xam tënku na ci doona bi wala déet natt bi nag weesul ay laaj yu simple yu ñëpp ak ku ne mën a tontu boppam